mën dégg di leen wax ne day ñun day fekke lu bari ci Maulana Cheikh Ibrahim waaye bi ñu yàlla booleeg Cheikh Mouhamadul Moustapha Youssouf bi tey xam nañ dëgg dëgg Maulana Cheikh Ibrahim melokaanu Maulana Cheikh melokaan woowu rek la Cheikh Moustapha Youssouf bi tey meloo ci jëfin ci waxin ci dundam ak jaami yàlla yi Cheikh Moustapha yar bu rafet lay yar. ëdëb rafet lay def ci jaami yàlla yi yar bi li tax mu yomb la muy yaree moom dafay fekk jamono bu nekk moom ma ngay doxee loola lépp lum lay sant bala mu koy wax da ko miin ci moom bu dee ci doxin bu dee ci waxin mboolem luy comportement jullit soo ñëwee ci Cheikh Mouhamadul Moustapha bi Yuusuf bi tey da ko gis lépp lu mu am da koy jox jaami yàlla yi lu xam da koy wax jaami yàlla yi lépp lu mu gis sikk ci jaami yàlla yi du xool sikku kenn bay gis sikku kenn jamono bu nekk lu rafet rek lay xool ci Cheikh Mamadou Moustapha moo tax lu rafet rek lay wax ci ku nekk mosuma toog dégg Cheikh Moustapha wax ci nit lu dul kàddu yoo xam ne ni da nga naan kàddu yi day cib soppe lay jóge jëm cib soppe alalam boole bu ko kenn waxoon naa ko léegi soo ñëwee ci këram tey jii lu la fa fekk muy heure xewlu Cheikh Moustapha dañuy bokk ak moom añ loxoom lay jël ñun taalibe ñu jël kudd lépp loo xam ne ni lu gën la ca teraanga ya daf koy jox jaami yàlla yi ñu terloo ko suy jóg ubbi walisam la gën ci ay yére mu jël ko jox ko nit ñi jël la gën a oyof dëgg-dëgg Cheikh Moustapha nekk na koo xam ne ni ñun day wax dëgg la ñu Mawlana Cheikh Ibrahima waxoon dénkoon ñi koo xam na ni dangay wut kilifa walla ngay jàpp ci sëriñ critères yi nga xam ne nii bàyyi doon na ko wax bi ñu ko gisee ci moom jàpp ko ñun de am nañ sens Cheikh Mouhamadoul Moustapha danañuy ànd danañuy ànd ak moom jóg dem ci ay soppe mbooleem lu ko fa soppee jox daf koy jël dencal ko sëriñam soo waxee mu ne leen man wóoluwuma sama suuf mais dinaa leen ko jël ci suuf soo xam ne suuf sa du gàntal suuf sa moykan kan suufas Mouhamadoul Amine Ibrahim jamono bu ñu toogee ak moom daf ñuy wan ne ma man seen magam taalibe la sëriñ bi kenn la muy Maulana Cheikh Mouhamadul Amin Ibrahim day xiir tusul taalibe yi ñuy fab seen ñaq di ko def ci Maulana Cheikh Mouhamadul Amin Ibrahim te moom mooy ka nga xam ne moo ñu ci jiitu ñun ñëpp ñu gis loolu bëggut lenn loo xam ne ni luy manqué kër sëriñam la bëggul lenn loo xam ne nii luy doyadal kër sëriñam la jamono bu ne mi ngi fuuglu sëriñam ci anam bu nekk bu muy gën a sellee gën a taare loolu yëpp am njàngale moo xam ne nii wax dëgg yàlla am ah, njàngale moo xam ne mu ngi koy jàngal taalibe muy njàngale mu wér di njàngale mu rafet ñu ngi ko ciy gërëm ñun daal Cheikh Mouhamadou Moustapha dañ koy ñaanal yàlla yàlla defal ko jàmm guddal fanam bàyyi ko ak xelam ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf ñu ngi sant di gërëm ba alhamdulilah asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi sallallahu di gërëm suñu sëriñ Mawlana Cheikh Ibrahima Niass waaw ñu ngi ñu ngeen di wax euh, ne ne témoin ci Cheikh Mamadou Moustapha bi tey kooku ku neex a témoin la ku neex a témoin la nit la koo xam ne nii lañu ñu Cheikh Ibrahima si waxoon rek moom lañu gis ci moom la ñu bàyyi waxoon moom lañu gis ci moom nit ku baax la nit ku yaatu la nit ku bëgg nit ñi la nit nit la nit la koo xam ne nii xamut kenn ku dul doomu aadama yi doomu aadama yi ñoo ko gënal njabootu doomu aadama yi njabootu Euh, ci biti sax moo ko gënal njaboot gi nga xam ne mooy njaboot ak boppam gi léppam xalalam du du du des xalalam moom lépp nit ñi moo ko moom Cheikh Moustapha daal ku nag ku neex a témoin la koo xam ne ku baax la ku bëgg Mawlana Cheikh Ibrahima Niass la ku xam xam-xam la koo xam ne nii la kuy jëm kuy dimbale jullit yàlla yi la koo xam ne kuy dimbale jullit yàlla yi la koo xam ne do euh, soxla soxla doomu aadama yi mooy soxlaam jamono bu nekk heure boo ko gisee muy dox rek ci euh, soxlay doomu aadama yi ci lay dox soxla doomu aadama yi ci lay dox mooy guddeem mooy bëccëgam Cheikh Moustapha amul kenn ku muy tan xam na du gone du mag képp koo xam ne daal yi xam na la rek yow kay yaa ko yoral xaq waaye moom yoralu la xaq képp ku ko xam rek yow yaa nit la ku baax nit la koo xam ne nii ku neex àndal la nit la koo xam ne nii nit ku gëm yonent bi sallallahu alayhi la nit la koo xam ne nii ku xam xam-xam la nit la ko xam ne ku gëm Mawlana Cheikh Ibrahima nit la koo xam ne nii mi ngi nampee ci battab Cheikh Mamadou Amine Ibrahima Niass ñun ñëpp bët bu set mu ñu ciy xiirtal nit la koo xam ne xamul waxul ne sax moom sëriñ la joowu waxta sëriñ la sax taalibe lay doon ba mën a bu nekk bu ñu àndee dafay wane ne moom yéen yéenee sëriñ bi waaye man bi te moom moom mooy sëriñ bi mooy ko xam mooy ki nga xam ne moom mooy moo xam mooy ki ñuy wax ñuy dégg mooy ki ñuy jàngal ñuy ñuy xam mooy ki nga xam ne daal nit la koo xam ne daal ñun mënuñoo wax ci moom sax parce que euh, ñun ak moom sori nañ sori goo xam ne te ni ma dem man ni mel ci man ni la mel ci ñëpp nit la ko baax nit la ko xam nit ñëpp la nit la ko xam nit ñëpp la ñu ngi koy ñu ngi koy ñaanal yàlla rek ci barke Mawlana Cheikh Ibrahima ci barke maamam yàlla na yàlla guddal aw fanam yàlla na guddal aw fanam yokk man-manam ba nga xam ne li nga xam ne moom la yéene ci jaami yàlla yi li nga xam ne moom la yéene ci jaami yàlla yàlla may ko mo man ko ci barke yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi koy ñaanal ci barke Mawlana Cheikh Ibrahima barke alquran barke Baye barke asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala alhamdulillahi rabbil alamin ko yettude allah tan e julde annabijo e min ñaagono allah so ɗum so abbitey yo allah junne balɗe makko moƴƴina battane makko ko jeyaɗo allah moƴƴo gonɗuɗo nunɗuɗo emin ñaagonomo allah yo allah ɓoynumo ardade dental ngal bi jahi ko gorko kaara min ja min mbaɗe makko tarbiyaɓe min gayni min ɗannudima makko min mbaddema gueɗe kewɗe emin ñagonomo allah yo allah ɓoynomo ɗo arda dental ngal be jahi rasulillahi ko jeeyaɗo allah moƴƴo nunɗuɗo ala eh, tapplagal ala hay hunde kala dewɗo e makko sa wonani koye ma woni ko nata makko bon ɗum tan min jinno haalde hen seeɗa e yettude allah yettanemo allah salamu aleykum wa rahmatullah rajo bi turu rajo bi waaw ñu ngi wax alhamdulilahi rabbil alamin ñu ngi taseeg télévision bi nga xam ne mu ngi ñëw di def reportage ci alaaji Moustapha bi tey ci journée bii nga xam ne taalibe ñu ngi ko ko jagleel nga xam ne chaque année ci weeru koor wi date bi bu egsee conférence bi danañu ko def te moom mooy ki nga xam ne moo waral bés bi mu nekk jaama bi yàlla boo xam ne jaama bi yàlla bu baax ku rafet jikko boroom xam-xam boo xam ne dafay jëfe xam-xamam ku bëgg doomu aadama yi xam naa ci moom ci soxnaam buñ ko doon may ba nga xam ne ay waajuram ñëw nañ ne ko ah ñu de dañoo am dañoo am ki ñu lay may dafa njaboot te duggagul ci néegu sëy mu ne leen man li ma yëg mooy dama gëm ne mbindee fi yàlla yëpp sama njaboot lañ kooku ma ne nañ cee xame ne kooku kon wiraasa gu ma donn ci maamam Cheikh Ibrahima Niass la nga xamante ne moom njaboot gi mu njaboote doomu aadama yi ba mbindeef yëpp toog naan kon bàyyi ci wiraasa googu ci la donn képp koo xam ne danga donn nag dara la nga donn lépp ah day nekk day nekk di wàllu sëb cër maamam mi nga xamante ne mën nañoo wax ne libérateur la cardiologue la ci doomu aadama yi ku wër di defar xoli doomu aadama yi di libéré doomu aadama yi ci safara ndaxte bépp jaamam yàlla boo xamante ne ànd naag Mawlana Cheikh Ibrahim te ci lef moomu ci la Moustapha bi tey di dox bàyyi moomu nga xamante ne lii nga xam ne ci la sëriñ bi yëngatu tey te lef mii àddina bi yëpp mën nañ cee yëngatu te boo sëriñ bi sos muy Mawlana Cheikh Ibrahim nekk ci kóos yi nekk ak mag ñi fee suñu néeg moom dafa waxoon ne ñu ngi nii fee suñu néeg bi waaye jamono dina ñëw dinañu fees àddina bi ba mu koy wax nag ku mu ku xam ne defaruñu woon sa pas-pas doo ko mën a gëm moom Moustapha bi tey nag moom Cheikh Moustapha bi tey ci lef moomu ci lay yëngatu nga xam ne bàyyi dafa wax ne moom mu ngi li lef mii muy woote am na ci ndigal lu wér lu bàyyee ko ci yonantu bi sallallahu alayhi wa nga xam ne dafa wax ne wala abdu qad laqee aynal ilmi wa jaawal ismu bi duuni wax mi dox na ba taseeg jëmmi xam-xam ja ndigal dikkal ko jógee ci moom te yonentu mooy jëmmi xam-xam ndax yonentu wax ne ana madinatul ilmi wa aliyun mooy bunt bi ci lef moomu nag ci la sëriñ bi yëngatu ma bàyyi jotee ndigal loolu dafa war ci àddina bi war naan walu ummatu xasdi fihimo an asoqahum ila hadarati barrahimi ilahina li ma yéene xeetu Muhammad yëpp mooy maa ngi leen ommat leen egg leen ci pays yàlla bi loolu moo tax mu wër ci àddina bi fa qaadartu awtaani wa ahli wa usrati ajubu falaam falaalam asqu qattu kalaala dem na ci banaan li xonkooka min bankooka jaa a qadimakum yuwaali lakal asfaara wa huwa ataala bila hóori bil xindil qadimi imaratan masiri ilal mawla wa jalla jalaala mu joxe màndargam sëriñ buy yare eggale ci yàlla preuve yi muy am ba nga sëriñ buy yare na nga wut ci moom preuve lay wax watlub murabbiyan xabiran naasi an kaamila irfaani imaama zaalihan maliku nafsaka fala tudabir wa kun ka mayitin dawaaman tuxbir wala tuxaalif wala baana fa saadu rahi fa kun dawaaman saatisa watlub na nga sàkk murabbiyan aji yare jëme ci yàlla xabiran bu am xam-xam naasi an bu laabir kaamila irfaani bu matale ak xam yàlla imaamatay njaat njiit saale an tiyu maliku nafsaka nga moom loo ko sa bakkan bu ko defee daf lay yóbbu ci li addis naan mootoo qabla lef mooma nag ci la Moustapha bi tey di yëngatu kon mën nañoo wax ne képp koo xam ne da nga ànd ak ni muy dox fu mu tegoon tànkam danga fay teg sa tànk lu mu bàyyi woon nga bàyyi ko kon jikkoy maamam Cheikh Ibrahima moom la jikkoo te bàyyi dafa wax ne isaa saara xayru naa surtout war a ax wa in xale yow man fal masiru baidun bu yonentu doxee ma dox su taxawee ma taxaw te yonentu du dox muy dox nag loolu doxu xol la doxu ru doxu sayru ilallah alquran dafa wax ne wa taral jibaala taxsibuha jaamidatan wa hiya mar a sahab am na jëmm yu toog benn place seen xol yaa ngi dox ci yàlla dox yoo xam ne moo raw niir ci asamaan si dox ba far lab ci jëmm yonentu sallallahu alayhi wa sallam loolu nag doxu xol la doxu ru doxu sayru ilallah ba mu doxee ba lab ci jëmmi yonentu nag dafa wax ne falaw sawarooni fil la lam yaraw si waa sax sin mahbubin bi foto kat yi bu ñu fotoo sama jëmm bu ñu sottee bu carte ba génnee yonentu mooy feeñ sëriñ bi itam dox boobu ca lay dox moo tax dafa mujj dox boobu baayam maama Cheikh Ibrahim di dox ca lay dox ba mujj moom adopté Cheikh Ibrahim ba jëmmam di jëmmi Cheikh Ibrahim loxoom di loxo Cheikh Ibrahim di bëti Cheikh ni bëti Cheikh Ibrahim ne bëti bëtam di nekkoon bëti yonantu loxoom di loxo yonantu looloo tax moom mu nekk jaamab yàlla boo xam ne lépp loo xamante ne lii dajee ci loxoom su ko doon téye tabax nay building waaye nag maam Cheikh Ibrahim daf doon wax ne lu mu am jox ko yàlla lu ma soxla laaj ko yàlla moom it ci lu def moom it ci la taxaw bunt boobu boo ko seetee ci la taxaw ba loolu moo tax sax moom dafay dem ba nga xamante ne koo ko gis rek da nga xam ne kii ah Cheikh Ibrahima mu taxaw la loolu ci lay dox guddi ci lay dox bëccëg wër di jàngale xam-xam di yar ay doomam di yar taalibe yi te itam li Cheikh Ibrahima doon wax xàmmiwul doomam ak keneen moom gëm na ne mbindeefi yàlla yëpp njabootam nañ ci loolu ci lay yare jàngale xam-xam yar nit ñi. teg leen ci siraatal mustaqim ah ba ñu am tawhid nekk jaam yu yàlla yu wéetal seen borom waaw di wéetal sa borom omat la tarbiya eggal la sa borom nga am tawhidu afhaal am tawhidu asmaa yi tawhidu sifaati tawhidu saati wéetal yàlla ci jëmm wéetal yàlla ci jëf wéetal yàlla ci tur wéetal yàlla ci melo loolu mooy li nga xam ne moom lay am mu loolu yare boobu bàyyi di yare nag baaw laanaa Cheikh Ibrahim li taal lim taalibeem yi jëlee ci moom moo dàq aljanna ndax ñooñ aljanna bu ñu duggee aljanna yàlla daf naan laaj leen ndollan am naa lu dàq aljanna supplémentaire ba yàlla dig ñooñ aljanna moom la moo Mawlana Cheikh Ibrahima jox taalibe mi te loolu ci la sëriñ biy dox ñun daal kenn lañ ci am toppam te li ñu mel ñun moom moo ko def moo ko def ci ñun melokaan wu mel ci nekk ci ñun rek moom moo ko def ci ñun parce que ñun mën nañoo wax ne benn jëmm lañ boo xam ne rek gëmuñoon lu may topp saali di karaté di kii ak di def yooyu moom nag moo ñu wëlbatiku yar ñu ah, ba nga xamante ne sax lenn ci ay soxnaam sax danañ wax naan da ngaa niroog sama nijaay waaye nag kuy ànd ak nit muy dox ngay dox li ñuy wax ne ku ànd ak nit mu xeeñ parfum bu yàggee nga xeeñ parfum loolu moo ñu couleur ci sëriñ bi waaw lii daal ci lay dox maa ngi leen wax jaama bi yàlla boo xam ne ku baax a ngi ni kuy wut ku baax borom jikko ju baax boo ko fi teggee mën nañoo wax ne doo gis keneen wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. auzu billahi min asheytaani rajim jaamu yàlla bu xeebu bi moom la sant mu jéem a wax ci kilifaam ci sëriñam cheikh Mouhamadul Ami cheikh Mouhamadul Moustapha bi tey ah bi ma àndoog moom nag daanaka mu ngi jëm. ci fukki at ak juróom yàlla def na aussi ci ndigalam mu jël ma teg ma ci ñaar yoon ci bopp daayra bi euh, bi ñu àndoo ba léegi li nga xam ne mën nañ koo jéem a wax ci moom a ah, xam nañu ne de nitu yàlla dëgg la ndax ba ñu àndeek moom ba léegi gis nañu li lim ñuy woo mooy woo ñu wowoon ñu jëmale ñu ci yàlla moo suñu wan boppam mosuñu wan sëriñam guddeem ak bëccëgam yëpp mooy jéem a xam lañu sharaatul mustaqim jéema a xam lañu njàngaleem Maulana Cheikh Ibrahima ñas mu faydu bi leneen liñ mën a wax ci sëñ bi mooy nit ku am kóllëre la nitu démbam ñooy nitu tayam Cheikh Moustapha mosuma li ma fukki at ak juróom yi ma ànd ak moom yëpp mosuma ko gis mu xool jaam bët bu nga xam ne bët bu rafetul la te yàlla xam na ne ne li ñu ànd ak moom yëpp ci ronam bëri na ay jaamu yàlla yum àndaloon ñu jëfeek moom jëfin bu rafetul mais Cheikh Moustapha bés bu tegee bëtam ci jaamu yàlla yooyu day mel ni ñoom la gën a bëgg ci njaboot gi des ànd ak moom mosuma gis Cheikh Moustapha wane ne am na lu ko metti Cheikh Moustapha mu ñuy fu ma ko gën a nawee mooy bu ñu àndeek moom dem Medina Baye taalibe Mawlana Cheikh Ibrahima Niass yi bëri nañ lool mais heure bu ñu demee Medina Baye ma gis njaboot gi nga xam ne ci loxo Cheikh Moustapha bi tey la ñu jaar ni ñu amee ëdëb damay sant yàlla mi nga xam ne moo ñu boole def ñu ci ron Cheikh Moustapha bi tey naw naa suñu sëriñ bi nga xam ne naam du nangu sax kàddug sëriñ heure buy wax ak ñun day wax seen magum taalube la sëriñ bi kenn la mooy Mawlana Cheikh Ibrahima Niass. bunt bi benn la pour ñun mooy Mouhamadul Amin Ibrahima Niass mais ñun sikk amul ci ne lii mu ñu xamal ak si xam nañu ne sikk amul ne moom mooy suñu sëriñ ñun ndax lépp lu nga xam ne rek xam nañ ko ci suñu diine lépp lu nga xam ne rek xam nañ ko même si suñu àdduna moom joué na ci rôle bu baree baree baree bari bu ñu xoolee avant ñuy àndoog moom ak léegi bi ñu àndoog moom lu bari soppeeku na ci kon dañ koy sant di koy di koy gërëm bu baax baax baax a baax a baax a baax ndax xam nañu daal suñ doon mën a wax mu ne ne jullit axan la sëriñ bu mat sëriñ la sëriñ bu nga xam ne du jay njabootam la sëriñ bu nga xam ne day teg njabootam ci li nga xam ne moom la yàlla teg moom la Cheikh Ibrahima tracé kon ñun ñu ngi koy sant ñu ngi koy gërëm alhamdulilahi rabil alamin aouzu billahi min asheytan irajim bismillahi rahmani irahim ala asrafi almursalin sayidina muhammadin salallahu alayhi wa ورضي الله عن شيخنا استاذنا وسيلتنا الى ربنا القدوه المهتم وخاتم محمد سيدنا مولانا امد التجاني رضي الله عنه ورضي الله عن شيخنا استاذنا الحاج ابراهيم الياس رضي الله عنه mbokk yi ñu ngi leen ziara di leen tatagal di leen màggal euh, ci bés bi nga xamante ne bés bu gën a màgg ci sunu bés yi mooy bés bi bés Cheikh Moussa Bitté Cheikh Mamadou Moussa Bitté nag wax si moom dana jafe lool ci man parce que man moo ma yar ala kulli haalin mun nañu wax ci arifi billahi yi gën a màgg yi ci la bokk parce que loolu wane na ko tey ñu mu yar boo leen xoolee tey ci wàllu xam-xam ci wàllu dëgg-dëgg maarifa lépp a wér leneen li nekk xam yàlla dafay tettale jikko ju rafet alhamdulillah ñëpp xam nañu borom jikko ju rafet la jikko ju kawe la ko mun a àndoo ko mun a xaritoo la du sagganee taalibeem ci dara lépp lu taalibeem nekk muy ci ala kulli haal loolu man suma ci waxee dara war naa wér parce que 97 ba tey maa ci moom tey fu ne mun naa fa waxtaanee ci jëmmam moo tax alhamdulilah wax ci moom dana xaw a jafe tool waaye danañ góorgóorlu wax tuuti rek am nga yàlla alxuraan dafa ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam innaka la ala xuluqin azimin ñu ngi lay tàggal si jikko ju rafet jikko rafet jooju nag ñu ko ndokkilee Cheikh Moussa Biteye koo xamante ne mosul du mooy taalibe am bépp taalibe bu ñëw jox ko fii di ànd ak moom te yàlla rek tax saa yi boo ñëwee waxtaana moom ci yàlla loo ko laaj dana la tontu ci saa si loolu ci ma xamal la bokk leneen li aaju aduna yi tamit loo am ci soxla aduna mosul tànk amuñu taalibeem ci ñii may na leen kër ñii may leen ay soxna ñii moo yor seen location lépp li yam lu am ci kattan ak warsiga mu ngi ko bokk taalibeem loolu fa lillahi alhamdu daal moom daal mu ngi teg tànkam ci sunna Cheikh Ibrahima radiallahu anhu comme mooy maamam donc moom seet bu bàyyi ñës la ci wàllu yaay am naa ñu foo la doonee ji ala kulli haalin daal xam-xamam leer na rafet na te topp na ndigalu sëriñam Cheikh Mahamadul Amin radiallahu anhu lépp lu ko sant lay def lépp lu ko tere lay def fa lillahi alhamdu ñu ñëpp ñu ngi sant yàlla ci loolu yàlla yàlla jàppale yàlla ko yàlla taxaw ci barke rasul sallallahu alayhi wa sallam asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh shukran seytaan rajim bismillahi rahmaani rahim mbokki alhamdulilah ñu ngi sant yàlla bu baax di julli si yonent bi sallallahu alayhi di gërëm suñ sëriñ Maolana Cheikh al Islam Alhaji Ibrahima ñas di sant yàlla ci bés bu tedd bi bés bu màgg bi nga xam ne euh, bési la ci bési weeru koor ci bési koor muy euh, bés boo xam ne ñenn ci euh, taalibey sëriñ bi ñoo taxaw pour fas yéene def conférence boo xam ne at bu jot lañ koy taxawal fii ci dakaar ci weeru koor ñu bàyyi ko Gàmbi ñëw teew fii teewal mboolem waa Gàmbi ci jataay bi di ci sant yàlla bu baax euh, di ndokkeel mboolem mbokk taaliba yi waaye di ñaan yàlla jataay bi yàlla na ko yàlla barkeel yàlla na yàlla def jàmm def ci tawféex ñu ngi sant yàlla bu baax nag ci sëriñ bi nga xam ne tey moom la ñu yàlla jagleel muy Cheikh Mahadoul Moustapha Youssoufa bi tey muy sëriñ boo xam ne wax dëgg yàlla wax ci moom mun naa wax ne yomb na mun naa wax ne yombul ndax euh, suñ ne jullit la rek doy na waaye taalibe Cheikh Tidiane la taalibe Maolana Cheikh Ibrahim la ku sellal digganteem ak boromam la waaye ku sellal digganteem ak jaamu yàlla yi la ñu ngi koy ñaanal yàlla yal na ko yàlla defal jàmm defal ko tawféex ñun ñi ñëpp moom moo ñu yar moo ñu nàndal ci kaasi faydu euh, nekk euh, koo xam ne wax dëgg yàlla itam yëpp daf ko jël def ko ci liggéeyal Maolana Cheikh Ibrahim waaye ci buntab Mahmadul Amin Ibrahima Niass radiyallahu anhu Euh, téere bi nga xam ne mooy Ruhul Adab nga xam ne Mawlana Cheikh Ibrahim moom la njëkk a taalif soo bëggee gis jëmmi Ruhul Adab soo xoolee Cheikh Modou Moustapha bi téere gis nga moom ci loolu euh, ndax am na yar am na teggin euh, jikkoom rafet na am na xam-xam waaye mu ngi koy jëfee guddeem ak bëccëgam lépp mu ngi ko jël teg ko ci yoon yi yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi koy ñaanal yàlla yal ko yàlla defal jàmm waaye mbooloo mi nga xam ne tey moom la ko yàlla jox yal na yàlla barkeel leen yàlla bu si seytaane am cër tey jii man maa ngi bàyyeekoo Gàmbi ñëw fii ci dakaar waaye liggéey bii nga xam ne tey mu ngi koy liggéey fii ci dakaar mu ngi koy liggéey ci Gàmbi euh, mbooloo mu takku moo ko topp fële ca Gàmbi euh, muy ànd ak ñoom ci yoon wi nga xam ne mooy yoone Maolana Cheikh Ibrahim euh, dëgg-dëgg sëriñ bi ñun mënuñ ko fay ñu ngi koy gërëm bu baax ñu ngi koy sant ñu ngi koy ñaanal yàlla yal na yàlla mooy ko jàmm yàlla defal ko tawfiix waaye defal ko mboolem taalibe yi si barke Mawlana Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu euh, ñu ngi jégalu ci kàddu yi ñu euh, di ñaan yàlla jataay bi yal ko yàlla barkeel yéen nañ fekkee ren yéen nañ ko fekkee ay waat yu bëree bëree bari si barkeent bi sallallahu alayhi wa sallam allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallam rahmatullahi wa mbokki jullit yi mbokki ñuy seetaan leen di nuyu di leen di ziyaara di amal tey conférence boo xam ne Cheikh Moustapha bi tey mooy ki koy taxawee ñu ci ndokkeel bu baax euh, di wax ne conférence la boo xam ne at mu nekk daf koy taxawal fii ci camp Cekku Mballo muy waxtaanee ay thèmes yu am solo yoo xam ne jullit bi bu ci bu ko déglooyee bàyyi ko xel setantal ko dana ci jàngat jàngat boo xam ne bii dana am njëriñ rawatina ñu koy taxawal ci shahru ramadan mubarak bi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi na ci détaillé ko ci ñetti parti ne euh, awaluhu ñu koy jàngee wa awsatuhu maghfiratun wa ci shahru ramadan mubarak boobu ki taxawee conférence bi nag ki koy nga xam ne daayira bi ñoo ko taxawal mu Cheikh Moustapha bi tey muy ko xam ne xam nañ ko yàgg nañ moom xam ko ci yare ci ay taalibe ci tariqa Cheikh Ahmad Tidiane ci faydu Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu kooku moom lañ am luñ ciy témoin ci moom di ñaan yàlla nag képp ku fi ñëw nga ñëw ak euh, ndab lu set rek euh, taataan ko te xam na da nga fi duyee ndox mu set incha allahu ñu ngi woo ñëpp di tatagal ñëpp di wax na yàlla nañ ko commencé ci bisimilah rahmaani rahim yeggale ko ci alhamdulilah rabbil alamin kon ñu ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi ni بدمه فوق شبابي وجاري فوق يابوبي لنا بالقدم محبوبي ومغسال الأذنان وسيفي بين أمدادي وهو روحي مولانا ومن جانا ومن وانا ومن جانا أبلها باس مسكانا مميد كل تجاني سمع عن كل أوراد لأسياق وأبرار فهذا ورغناني yàlla